مع عيوبي ومع عفاسي من قادني سكور في أنفاسي مع عيوبي ومع عفاسي nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne tey moo fi Serigne Touba di ñaan mooy du mu yàgg fi te ak wér di nuyu kilifa yu tedd yi nga àndal yëpp di Cheikh Mouhamadou Fadil ak Serigne Bara ak Cheikh Modou Fadil ak sëñ Cheikh ak sëriñ Uwaysu ak sëñ Fallou ñoom ñëpp ñi fi teew teewal ànd ak yow ci bis bi comme ni nga ko waxee rek ñu ngi siyaaree sëñ Moussa bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax kàddu yi nga seere ci moom rek moom la ñëpp xam ci mooy kilifaam bu fi mas a nekk rek topp nañ si ginnaaw laxasaayu doon sa jëwriñ kenn du ko jiitu ci liggéey ba ba suñ def tey mu ne ci kanamu njaboot gi yëpp kon muy kilifa goo xam ne itam ku mat kilifa la ndax kilifa bu melee na war a mel xam la mu war a xam te kenn déggu ci lenn loo koy xebete wala jënn jëf joo xam ne lu manqué la bokk na ci ñi nga xam ne ndam yoon wi lañ waxtu na dama koy seere fu mu néewut kon dañ koy ñaar bu baax mu yàgg fi te ak rakam yi topp ci ginnaaw yëpp di teg nuyoo bi ci sa loxo yow mi nga xam ne yàlla def na ba Cheikh Sidi Mokhtar jëlee ndigal li yónni ma ko ci moom ci yow laa jaaroon ndax wa atul bu yoota min abwaabiha yow lañ def ngay seen buntu waaye ñu di ngay suñ buntu ci ñoom bañ accès wax la ko itam nga wane ci yitte ak positif ak taxawaay ak xalaat yu rafet rafet seet na liggéey ba gën a baaxee rek ak na mu gën a rafete nga ko noonu ñu ànd ko dem ba ci moom euh, sëriñ bii di wane ci teg positif ndax kon ne xam na ne biñ ko koy jox ak fi mu toll euh, bu ko jëfewut bu ko defutoon it du tee demee ne def na ko ndax yéenam ndax talu ko woon waaye positifam ak yéenam rek ak taxawaayam moo tax liggéey bi mën a demee nii liggéey bi nag euh, tawféex la ju rëy rëy maa ngi la koy seeree léegi. ndax xam nañ li ngeen ci daj ak coono yeeg taxawaay bi positif bi ak li ngeen ci wane waaye nag du kiimaan ndax ma Massamba day lépp Serigne Touba liñ mën a seere ci moom rakki sëriñ bi la di doomam di taalibeem ñett yëpp dafa daje ci moom Serigne Touba it wóolu woon ko lool te la ci jiitu mooy biir kër gépp moo doon jëwriñ biir kër gi loolu suñ bi daa santaane ci liggéey ci biir kër gi moo ko daa jiite di ko taxaw ak ci biir kër gi ci boppam fu fu ñu mas a amee jaaxle ci sëñ bi it ci moom lay ñëw mu gindi leen delloo si leen ci lu xóot loo xam ne sax lu ñu mën a wax ci biiru rajo waaye diggam ak sëñ bi ni ko suñu Cheikh seere léegi rek xam nga asaabi kër nu jumi bi ay yéexi mux tadaytum tadaytum yéex tadaytum kon waa kër Serigne Touba di rakkam ak i doomam njëkk defar ñëpp noonu la Serigne def ci ñoom koo ci tànn di ko waxtaan rek day mel ni kii mooy Seydul Axyaar yi waaye moom yàlla dafa def muy lépp sëriñ bi bëgg sëriñ bi lool nuru ko it ci jëf ak melokaan ak jikko yàlla def itam ci taarix lañ nett bi daje bi sëriñ bi mujj def ci gaaw ba muy xutbatu am sosin bokk na ci lam barte lu waaye di joxe na ko jox Cheikh Massamba kon loolu qualité fa am ak yeneen yu bëree bëri yoo xam ne bu ñu ko doon lim ci jataa bi ci liñ ci xam bu jeex kon diggam ak sëñ bi doy na sëkk ci xasida yi ni ko ci sëñ bi féetale ak liggéey bi mu ci def foofu sëriñ bi masaan di waxtaan it ndax wax sëñ bi ñu ëpp ci mbooloo mi ñenn ñi daawuñ ko mën a dégg ñu ci des it daawuñ xam li sëñ bi bëgg a wax waaye sëñ bi dafa ubbi xolam ak xelam def ci moom xar baax ju rëy joo bu sëriñ bi nett lay wax ji ba jeex sëñ ma sàmm mooy dajale waat nit ñi di leen ko leeral ba nit ñi mën koo dégg di ko xam lépp ci waxtaane sëriñ Tuubaa yi ngay dégg ci moom la jaar kon moom diggam ak sëñ bi dafa dafa dafa sori lool yàlla defe nag eh, bi sëriñ bi ñu bisoo Tuubaa it taxawaay boobu la taxaw ci Cheikh Mahamadou Moustapha ak doomi sëriñ Tuubaa taxawaay ci ñoom taxawaay waajur waaye taxawaay ci ñoom taxawaay bi mu taxawee woon ci ñoom nga xam ne adduna sépp xam nañ ko loolu nag mooy dellu soit ba ci doomam yi bu fi bàyyi di sëriñ Modou Baye ak sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Saliou ba ci suñu baax ak ñi nga xam ne sax tooguñ ci jataay bu mu si Modou Fatick nga xam ne ñëpp xam nañ positif moom itam kon dañuy sant bu baax a baax rek ndax keroog ba may ñëw ci suñu Cheikh dama ko wax na ko liggéey bii de day mel ne liggéey ba Cheikh Abdoul Ahad def la woon sëñ Mouhamadou mu defoon ci taxawaay ba mu ci def ak posture ba mu ci def ba nëgë boo duggee ci kër sëñ Tuubaa fekk fa ba tubaab sëñ Mouhamadou kon la ko Cheikh Abdoul Ahad wax na ko mu nekk sa seeri ëllëg waaye fii itam di kër sëñ Tuubaa goo xam ne Serigne Saliou moo ko rëddoon Cheikh Abdoul Ahad na ko naaroon bàyyi ko fi Serigne Saliou miir lu ko tàmbali liggéey bi waxoon ne itam li ma ci jublu mooy damaa bëgg. kër Sëriñ Tuubaa gi dafa jege jumaa ji nekk ci biiru ormi sëriñ bi moo bu kër gi àggee mboolem gan ñi ñi ci ëpp ñu leen dalal fii kon loolu mooy sababu kër gi mu ñoroon ko itteen ko da defaroon yenn plan yi ci gën a bari sax ba ci jàkke ji waaye liggéey bi ku fi ñëw xam ne yitte ak taxawaay ak positif bu rëy rëy defe ngeen ko ndax indee plan bi jébbaleen ko rek lañ ci noppi waaye man mi ko doon indi sax xalaatum moo ne liggéey bi dana demee nii kon lii moom euh, yëmut rek ci jëf waaye yéen juree du ko lantaay ndax lii moom ci bi mënu ko weesu bëti waaw mënu ko weesu waaye noonu amul leen loo boo fu duggee saxee dana xalaat ne ko ci dolli woon nangam loolu nag kon dañuy ñaan rek postef bi ngeen ko jëfee ak yéene ji ak ku ci dugal alalam rek ak ku ci yéene woon a jëf day ceeg payu Serigne Touba day ceeg payu Cheikh Massamba te it dana ci am tam nag di leen jotali kàddu Cheikh Mouhamadou Mountakha mm, ak i cantam ak i ngërëmam keroog ma jotee itam keroog gaaw laa ko jotti lépp mu rafetlu ko lool itam xamal ma ne itam naa ñëw waxtaan ak yéen ñëw xool ko comme ni ko uh, waxe woon waaye lii moom damay jiitu rek waaye àllarba wala alxamis dana ñëwal boppam comme ni ngeen ko bëggee woon bu dikkee eh, dugal boppam ci biir jot leen kàddu yi cantam ak ngërëmam doo door a dellu incha allah loolu moom sëñ bi nangu na ko ba noppi allah àllarba wala alxamis dana ñëw mu ngeen ci waxtaan nu mu gën a jube ci jube ci yéen rek neew noonu la ko waxoon bu ko defee dana ñëwal boppam bu dikkee xool ko eh, ànd koog sëriñ bi jot leen cant cant ak ngërëm ndax Sëriñ Tuubaa kat bu liggéey bu liggéeyloo Cheikh Massamba cant gi ci loxoom rek la ma kon nag loolu moom mm, xamee na ko noonu te xam ne Cheikh Sëriñ Moustapha li mu doon ci moom ay taxawaay bi mu taxawee ci moom kon loola dara doyu ko ci du may yëkkati tànkam ba agsi fii xool ko santal leen boppam ñaanal leen boppam gërëmal leen boppam kon ñu ngi di sant Sëriñ Cheikh bu baax ñaana leen ñaanal yow itam ci taxawaay bi ndax na nga taxawee ci kër sëñ bi xam nañ ko ak ci njaboot gi ak ci yoon yëpp nag taxawaay bu mat sëkk bu rafet boo xam ne lu mu doon luy ittee yoon wi di ittee sëriñ bi kenn du ci jiitu te lu ci bari yàlla teggil na la ko ndax sa responsabilité mayatu ko xëy na say atit mayatu ko waaye kenn doyulu ci loolu nag taxawaayu sa waajur rek lañuy ñuy fàttali moom mi fi nekke tey itam noonu rek la nekk woon ak kon nag buñ la doyloo ba jiitale seen kanam euh, daa fekk nga mate ko kon lay ñaanu ñuy itam bu baax Euh, ak saraka yëpp suñ borom dëgëral la kàttanal la may la wér yaram ba ni nga taxawee ci kanamu njaboot ga rek ci seen ginnaaw waajur yàlla yàggal ko lool ba liñ bëgg ci te di la ko jëfloo waxtu ni ngi ci gën am ndam ndax taxawaay bi moom dara yeesu ji waaw ñu ngi sant bu baax di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa uyubi wa maa ifaasi man xaadali sukura fi anfasi